bokk yi damay laaj ci tànt bi kan mooy tëdd ba guddi mu ne yàlla yàlla gindi Wally Seck ay bu tuuboon bàyyi caaxaan na ñuy indaale day bëri de waaye li ëpp ci nit ñi duñu xool yërmande gi duñu xool ñeewante gi duñu xool buntu tuub bi nga xam ne yàlla du ko tëj mukk li fekk saa taax taxawul wala doomu aadama bi di sukuraat yonent bi mel woon noonu yow yàlla ma ngi lay ñaan ci ñaari omar yi nga tub tubloo ci kenn mu dëgëral lislaam wax ma Waly Seck du jullit de mooy caaxaan yi mu nekk mu bàyyi ko nekk koo xam ne day jëfee li ko yàlla digal tënku ci sunna ak alquranul karim moo tax képp kuy wootee nanga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan yombalal gaa yi yombalal qulu laa ilaha illa allah tuflihu gaa yi laa ilaha ñu ne waaw ñi xam dëgg-dëgg xam ne lii piège bi buñ ciy dugg rek ay warteex day ñëw ci ñoom waaye gaa dugg na ñu ne aqimu salaat wa atu zakat ba gaa yi mu ne hayya alal jihad gaa yëpp jóg mooy rif ko ngay ànd ak doomu aadama yi moo tax boroom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu yar dañuy wax ne booy daawa doomi aadama bi bu ko tere buy naan sàngara bu ko tere buy njaaloo bu ko tere ne dee koy digal ma ne boo ko digalee jamono bi waroon naa ni sàngara nga digal ko fa mu def yiw dootul naan sàngara ndax da ngay waxtu wi nga xam ne da ci doon def lu bon nga fexe ba mu def ci lu baax ah day julli ci mbooloo de julli ci mbooloo ak am njëriñ bu ko wax ba julleeti sa kër ni de nee ko julli ci mbooloo ñaata ngëneel ñaata daraja nga ëppee julli ci kër yi nga xemmem loo ko bañ ko wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax ne aka neexoon ma am ku ma jiital ci jàkk ji ma dem